sab soññee nga ak sa ñun bu baax a baax a baax a baax ndax euh, lii nii kenn du ko jàngale ak dogu kenn du ko jàngale mën nga koo wax nit waaye fexe ba nit dogu loolu loolu beneen mbir la ndax dogu mooy riñaan ba lépp bu ko defee euh, xamle sëñ bi ak yaatal mbirum sëñ Tuubaa ba lim jàngale tamit mu mën a àgg ci ñun ndeem ñun suñu ci mu jàng dara jiitu ci togg ñam di ko séddale ay nit ak wan nit ñi ni euh, sëñ bi aw yiw rek la leen ëmbal. bu ngeen gisee jotaay bi xam ni ay taalibe yu siyaar si seen sëriñ la mel ni bi nu génnee ci sëriñ Muntaxa Mbàkke lan ñëw ci rakkam ji di taalibe sëriñ tubaab bëgg ko lool nun murit yëpp nu safoo ko ngir saa yoo toogeek moom soo jógee sa bëgg sëriñ bi dana dolliku waaye dana nàmmaat pas-pas yi muy Cheikh Mouhamadan Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad euh, ñu ngi toog ak nag sëriñ naa Bousso mi nga xam ne wéy juróom sëñ Fàllu Bousso am na liggéey bu mu def ca Gabon marqué fa empreinte am ak njabootam gépp soxna maam jaara mën nañ koo tudd waaye doon fa liggéeyal Serigne tubaa ak désintéressement moom itam noo ngi koy siyaar baax. lii nag liñ ci bëgg rek mooy caravane bi nga xam ne noo ngi koy waaj xam naa damay jox sëñ naa bu noppee rek euh, sëriñ bi daal ñu ci daggiwaat mm. nammaat pas-pas yi ndax taalibe bu ñu sañoon bis bu jot ñu dëpp ko micro. ndax fii jamono toll soxla na ñuy wax ak murit yi ndax ñuy gën a gëm sëriñ tubaa di ko gën a liggéeyal di ko gën a yaakaar waaye di ko gën a jox sunu bopp loolu nag noo ngi ciy sant bu baax du mun Mountakha kon Serigne Cheikh naa bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah Serigne bi ñoo lay siyaar bu baax di la ndokkeel di ñaan yàlla yàggal la fi di rafetlu sab jataay bu baax ak sa yitte. ak sa pastéef ci Serigne Touba ñu man koo seede ak sa bëgg nit euh, ñuy diglu say kàddu ci yu baree bari yoo xam ne ñu bari ñu ngi ci jariñu muy liggéey boo xam ne mu mel ne ñu ëpp ci ñu fi weesu woon seen Cheikh Mbeng ak si Mamour leeram nañ ko ci lu bari fii nag war nañ fay ñëw ndax lu baree bari moo wax ci benn xista rek ngir. Euh, Serigne fàllu moom ko nettali te yaakaar naa nettali na ko ñoom ñoom suñu seex mi ngi am naa sax xëy na nga xam ko. neena bi muy ñëw Gabon dafa ñëw tàggu Serigne Abdou Lahad fekk mu am ñu mu toogal comme nii mu ne ko toogal ne ba ma noppi nee na bi mu noppee mu woo ko mu ne ko Fallou de yàlla xamal ma sa jëmm ji loo xamut. mu ne ko sikkuul mu ne ko xamal ne taraange àdduna ak alaaxira yàlla yonent bi Serigne Touba jox na la ko te foo nekk ma nga waaye gaboo ga nga jëm dañ lay liggéeyloo mbaa génn nanga muñ tabul fayantoo lii moom moo ko moo ko nettali te ba mu koy wax eh, ci biir daare kaamil bi ñu siyaaree Sëñ Abdu ba génn ci buntu barab bi la ko nettalee bari nañu fa nekk te yaakaar ñu bari xam na ko kon day mel ne la ma ko waxoon eh, agsi na ndax dem na ba yor fa liggéey Sëñ Tuubaa ba tey jii nag bu ñëwee ngay ak leeram ñu ñëwaat ci sa keppaar jeexitu liggéey boobu ñu la ñëw del ko leeralal liggéey bi nag mu mel ne euh, sëñ Fall dafa amoon yéene yi ni ko sëñ Cheikh Mbengue nga waxee léegi samp loo xam ne boo liggéey lu ñu mën di fondement teg ko ci mu taxawal benn ONC boo xam ne caravane bi ci lay mën a mooy tànkam yoo xam ne fu waaye nekk ci adduna bëgg ñëw biir Gabon def sa ziar ci ngay mën a ñëw dem ba Ginna te du am benn jafe-jafe loolu nag bi nga xamee ne mi ngi am ñu amoon ay yéeney moom amoon na yéeney jumaa ju mag ak daara yi soxna jaara ak barabu jàngukaay yàlla def mu nelaw bi demee ci sëñ Sidi Muxtaar euh, mu jox ko ci maa ndigal mu ne ko waaye bëgg naa sa alal moo ci jiitu barab boobu nag fale ñu dem dafa toog dafa jàng kaamil ak alxuraan di fàttaliku sëriñ bi. loolu nag ba xol yëpp tooy ci loolu. ñu bëggoon a jot ca barab ba. barab ba ñu xam ne ab église la boo xam ne ñoom ñoo ko moom ñu ne kat xam naa président rek moo ci man dara. te loolu si Muntaxa moo ci man dara wax ak moom bi ñëwee ñu dem fa waxtaan ak moom ca loola ngir bëgg mu yëkk ci kàddoom yàlla dogal euh, ministère des affaires bi nga xam ne moo nekkoon ambassadeur bi fii ci Gabon mu nekkoon ku bëgg Sëñ Tuubaa am na ay taxawaay yu bari ci mbir mi ba sax indi woon ko ci Sëñ Muntaxaa ba mu ñaanal ko bi président bi bees bi toogee fal ko ministère des affaires étrangères ñu dem ci Sëñ Muntaxaa euh, ñaan ko mu wax président bi pour ñu jot ci suuf sa mu sabra ca lool bind benn bataaxal jëme ko ci président bu Gabon bi ak ministre bi joxoon ñu ndigal pour ñu mën ko yóbbu yàlla dogal bi ñu waaj bay dem ndax suñ ñoom si seex mbéy nga waaj na yoon bu baax ak ñoom suñ bàddoo ministre bi ci boppam far yàlla def moom mu ñëw Sénégal daañu woo pour ñu dajee Dakar ñoom suñ kalaam mi ña ngi ca woon ñu bari ci waa karawaan bi lay ñu àndoon dem jébbal ko bataaxal bi mu am ci mbégte lool xamal nañu nekk maanaam karawaan bi moom nañ compter ci moom li sëñ bi bëgg ci suuf ak li mu bëgg ci jàppale ci caravane bi dana ko amal daan ñu président dana fi ñëw mawada ma décembre bu ñëwee dana fexe ba ñu am ak moom ab jataay yàlla dogal président bi ñëw na fi bi ñëwee moom at ministre bi woowoon na ma pour bëggoon a gis mu Muntaxa ajjuma far sëñ bi dem Poroxaan waaye mu yebal ab délégation ñu ànd ak ñoom dem waaye bi ñu demee ba mu recevoir ñu ñu toog àgge ko euh, bëgg-bëggu sëñ bi. laata ñuy pare yëkkati na téléphone am di woote di xool suuf sa baxam xam nu mu demee pour jox ñu ko daan na wax leen nu ngeen ko bëggee. ministre boobu tamit bi mu toogee moom du ab jullit. waaye moo ne ñeent banti maa yombee kat benn ba mooy jumaay Touba benn mooy jumaay eh, Njaareem benn mooy mooy mooy Masalik daan na bi nag fii la war a doon te ci maa yomba daan na sax yemuñ ci loolu waaye war nañu faa am café maa yomba suuf suñ ko bàyyee. nga xam ne ñoom ñëpp neen li suñ bëgg dañu ko amal. dafa suñ ci yéene taxaw jàpp lañ ci baax baax lii mooy mooy ma nekkoon bataaxal euh, bi waaw gannaaw bi tamit Sëñ ci boppam ni ko Sëñ Tuubaa ñore ak ni mu bëggee euh, yoon wi bi li amee tamit dañoo demoon ne ko ah, buñ sañoon nag yaa ci jiitu mu dagg kart membre woo xam ne dañ koy barkeeloo ngir liggéey bi jëm kanam ci loxaam moo moo jël daal di maa rempli di ndax wax tamit ñu yaatal ko yaatal googu nag moo waral ñu doon dem ci kilifa yi waaye nag suñ suñ seex mbay nga wax rek ci yow moom dangay waar woo xam ne moom moom wareen waar la ci waar yi loolu nag moo waral ñu ñëwoon di sàkku ci yow ay kàddu soññee kàddu yoo xam ne dana mën a amal njariñ mbooleem euh, ñi ko diglu ñëpp waaye tamit di sàkkuwaat tamit mbàkk sab teewaay waaw teewaay moom lañ gën a sàkk lool ndax dafa am ay jëm yoo xam ne euh, bu ñu teewee ci barab rek dana am ay jëm yu bari yu seen xol tooy sawar ñëw ca barab booba te loolu maa nga la lu yaatu liggéey Sëñ Tuubaa la ci liggéey maa bu yaatu yaatu kon nag loolu rek lañ doon la ko leeral yàgg nañoo waaj ji ñëw waaye day fekk rek nga dem ca tool waaye nag ñoo ngi lay ñoo ngi lay sant ka gërëm ak a ñaan di sàkk loolu di ko sàkku rek ngir jëmmi Serigne Touba euh, nga defal ñu ko waa te ñaanal itam maanaam mbooloo mi nga xam ne wax dëgg yàlla seen yitti du dara lu may liggéey Serigne Touba képp muy guddi muy bëccëg bàyyi seen liggéey bàyyi seen lépp comme ni ko seen Cheikh Mbengue doon wax léegi du jar ma ci jaaraat xam naa kon loolu moo doon kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi suñu Mamor suñu Seexuna suñu doom ji nga xam ni dégg nañ waxam bu baax a baax bég bu baax a baax di sawar bu baax a baax ci jataay bi ndax dara itteelu lu may si sëñ Tuubaa rek li may jëkkee nag mooy waajuram Cheikh Modou Fadal moom mi yaakaar naa xam na ci dara sunu jaxasoo ci muj gi la bi ma ñëwee Gabon mu ñëw aéroport di nu teeru si boobu xàmmeewu ma ko mu jox ma loxo ne ma mën a fàllu Bousso ma déplacé wu ci yoon woowu dem ba këram seeti ko ñu waxtaan fi waxtaan yaatu mu ñëw senegal ñëw fii sama kër ay yoon yoon yoon yu bari ñu waxtaanee ko fi bi ma mujj wax mooy su fekkoonte ni teeloon naa laa xam loo dégg gabon rek maanaa du doxe noonu loolu la ma fàllu wax fii sama biir kër yow xam nga ci dara ma xamoon ci moom yéeneeg pas-pas nag boo xam ne jéggi woon na dayu ci liggéey Sëriñ Tuubaa ci am yi ngeen di wax ñëpp xam naa ci dara junjoon na ma ci aslëf euh, suñu borom dogal lim dogal ci moom waaye nag ndokk bi mu bàyyee doomam ji nga xam ni dara itteelu ko lu dul tànkee papaam tegoon tànkam bu fas yéene wéyal loola ñu di ko ci ñaanal yàlla te di ci bég te fas yéene ànd ak moom gunge ko ci ci lépp yéen nag da ngeen war a sant yàlla. su ngeen fàttali ko yow yàgg nga Gabon yaakaar naa daay yooyu jëkk yi fi daa ñëw ci jamono Sëñ Abdu Lahat soo ko seetloo am na ci yoon boo xam ne bañ dikkee defe naa Madoune Gueye ko jiite woon bañ yëkkatee addi jox ko am na kàddu yu mu waxoon loolu dafa waxoon ni bam leen sante gërëm leen ba noppi dajaa caa ni sant leen yàlla bu baax ndax àdduna ku fi nekk faaw nga yëngu boo yëngu jëm ci li sëñ bi bëgg it da nga yëngu jëm ci leneen yéen nag seen seen yëngu bi lépp nag dara génnu ci sëñ Tuubaa loolu mooy dox ba si fii tey ba ci seen tànk yi tey mbir mi ngeen di def nag lu am solo la yoonu murid yëpp ngeen ko defal ak ko yaakaar sëñ Tuubaa fu ko mën a yaakaare rek jëf ji moom moom ngeen koy jëfal ndax sëñ Tuubaa liggéey bi lépp gabon googu daanaka fala manees na ni fala ngeen xamit coono yam fa dañoon bi nu ñëwee gabon euh, biñ jógee Libreville di dem ci pourcent yi maa ngi koy waxtaanee ak Cheikh Bass mi ma ne ko nan yéemaat sëñ Touba fàttalikul bi sëriñ bi ñëw fii ñu di ko jëlee fii di ko yóbbu euh, ca foofa booba dëkk bi ni mel métit bi fi nekk ak fitna yi ak bato yañ ko dugaloon ñun bato bi ñu dugg tey ak fi ñu jëm ak leenu teeru ak teraange yiñ ba fii lépp lëggéey bu ko suñu borom nangul la loola andi loola man ko bu demee ba téeméeri ati sëñ Tuubaa nu ñëw fii mu mel nii jëfal yàlla jëf ju ñu nangu la woon yéen nag li ngeen def lu am solo la ndax wane wane wane mbirum sëriñ bi ku koy def yàlla lay dimbali ndax sunu borom a ko wane ba noppi sunu borom dafa nekkal sëñ Tuubaa ci lépp te wone ko ba ñëpp xam ko ndax gannaaw daa waxaloon boppam ni njariñ lu ënt ak lor la njariñ lu ënt ak lor nag ñëpp ko bëgg. loolu moo waral mm-hmm. lépp dëgmal ko mm-hmm. ngir li ñuy wut mm-hmm. te mun na koo ñàkk tam nekk ci moom beneen bi it dëkk boobu ngeen koy defee muy maayo ma maayo ba googu fitna ju fekk na ko fa muy gabon googu lu ne fekk na ko fa natt bu fekk na ko fa lépp nag lëggéel yàlla ak yonent bi salaatu alayhi salaam moo ko waraloon ngeen ngeen fàttaliku sababu dem ga ak la ko laltaayoon ak lam ca waxante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak ba muy dem ak lim bàyyi ak njaboot gi nga xam lépp tàggal nañ ko ak moom fas yéene testal bi yëpp mu dangi lu mel moom képp dem ngir liggéey li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax jom fu nit àgg moo la faagale te ba muy dem di liggéey li yonent bi sa yonent borom jom dong ko yóbbu te amu ci wétal it amu ci woon wétal ndax loolu day day loo xam ne day faaw ma laal ko njalbeen gi bala muy agsi ci kii bi sababu yoon bi ndax la ko def mooy ba mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tënk rek ci fi ñu jaar yëpp ci tënk jërul guddal ba yoon wi taxaw nga xam ne mun da ñàkk a dem nga xool nga xool sabab ba bokk ci ahli badar da ko taxoon a jóg amul jëneen yitte ba ko yónte bi xamalee la ko nag bokkul ci ak bëri mënoo koo def ndax dañoo tuuroon deret te du deret wees na lay tax nga def ko fitna juñ lay teg la joo xam ne kenn du ci wétali te dañ koy yéenu bàggale ko la ca sëñ Abdoulaye waxoon adduna sëpp dégg na ko ruugi sàkkuma ko bay xam lu mu attan ak lu mu attan waaye bu ko ruugi attanee sama jom dékku na ko jom joojee nag la dëgërloo ba dem yéenu ci liggéey boobee booboo seetloo xasida yu bëree bëri njalbeenu gi ba mu daataan dem Gabon lu mu ciy wax day ñaan yàlla boroomam ak bokk ci ahli badri ba mu demee ba jógee gabang nag ba dellu si boo seetloo xasida yi mu defaat yëpp ba ci fulku bi ixtasanillahu bi kawni abada min ahli badrin ixtasanillahu bi anni waahidun min ahli badrin nga daal di xam ni kon la ko la ko taxoon a jóg di liggéey daal na koy am ba noppi kon lii ngeen di dox mbirum sëriñ bi day gën di jolli yéen nag dangeen bokk ci sabab yi nga xam ni sëñ Tuubaa leen di liggéeyloo ndax lii su ngeen ko bëggoon it te doonul lu lu jubu sëriñ bi du mën a nekk sëñ bi daal lépp loo làmb ci mbirum sëriñ bi bu doxee rek jërul laaj la jàppal ni sa sëñ bi ànd na ca loolu ba tax na ñu ngi ciy soññ suñu bopp di ci soññ nag ñu bokkal sëñ ñëpp gannaaw bu ndigal li jógee ci ku tedd kii nga xam ne fa ngeen ko mu Cheikh Mawud Mountakha mi nga xam dara itteelu ko lu liggéey xol bépp dara àddina nekku ci waaw wax ma waxoon ci làmmiñam ni xemmeem ci addina amatuma ko sama lépp ci Sëñ Tuubaa laa ko jox ba mu jeex tànk te di ko liggéeyal ngeen jóge ci moom maanaam ba ngeen amee ndigalam rek la lépp bax ndax ndax lépp looy def te teg ko ci ndigal rek la gën nga cee am barab boobu nag yéen lii sëñ Seexuna wax muy sëñ Fallou liggéey dafa liggéey bu rëy loolu ngeen war a fexe it moom ngeen war a fexe ñu di fa jëmmal sëñ wax ndax sëñ Tuubaa liggéey na fa loo xam ni lu ngeen fa tàmbali te def ko ci def ko ngir jëmmam faaw suñu borom yëkkati ko ndax lu mu liggéeyal yàlla ba noppi la te liggéey ko ca barab boobee. tey jii bu ñu mënee ne fii ci réew mi am jàmm ju sax dàkk foofee la ko suñ bi liggéey te bañ ko fi andit xool nañ ci àdduna bépp bépp bépp fi fi gën a bon ëpp fitna gën faa metti ñu tànn ko muy foofee ñu yóbbu ko waaye boobu liggéey liggéeyal borom rek ko fa taxoon a ak li mu doon wut te mënu koo ñàkk am te ca barab boobee la ko mën amee kon nag su ngeen demee ba tey jii ngeen taxaw temm ci wut fa suuf ya def ko nii ngeen ko waxee dekkal fa mbirum sëñ Tuubaa loolu waxuma la njabootu sëñ Tuubaa gi sës ci waaye képp ku yaakaar sëñ Tuubaa ak foo ko mën a yaakaare taxawaay war na la ci liggéey boobu ndax loo ca def sa bopp nga ko defal kon ñu ngi ciy soññee ñu nu bokk sëriñ bi yëpp ci ku ci koo xam ni am nga kàttanu mën caa dem fekke gunge leen ci ñu def ko ku ci am gàllankoor it ci wàllug sa jëf ci taalibe sëñ Tuubaa ak fu ñu ko yaakaare na ci ñëpp jàpp te xam ne lu ci lu jëf rek ci loxo suñ tubaab nga ko ndax liggéey boobu su su amutoon teraanga ji doom tey te teraanga ji nag ba àdduna sosoo ba nëgë ni sëñ daf ko raax ni ku ma sa jariñu te sunut ma si sut cee teg bët laa nafxa illaa baxdal kaddi waaye teraanga jontu ko coono nag suñ tubaab nu ko defal te foofee la ko liggéeyee kon ñu ngi ciy soññee di ci soññi taalib yi di ci ñaanal sëñ Fallu bi nga xam tam nekkoon na fa ak ak jëwriñ yi fa daje yëpp di liggéeyal sëñ Tuubaa ñi jiitu dem barsàq ñépp yàlla dafa leen teraanga ju sax ñi fi desit lépp lu ñu mébét yàlla àggale ko ci barkeb sëñ Tuubaa te yàggal fi Seex Mouhamadou Mountakha mi te ngeen góorgóorlu te xam ni euh, adduna adduna mamarun laa maqarun adduna rombukaay la doonu saxukaay sëñ Blaat daa wax ni soo fi rombee nag na nga fi rëdd rëdd woo bu ba adduna yi tukki ku fi dikkati xam ne rëdd bi yaa ko fa defoon loolu suñ fàllu mi làqu na tey waaye yéen a ngi nett li ay jëfam ak li mu jëf loolu mooy jëf jum fi jëfoon la ba ko fi bi mu ko fi baaw moom mii nag bu ngeen ko li ngeen taxaw ci wéyal ko tuyaaba jungeen ngeen ci am rek dana ko fekk fa mu tëdd tey ndax xalaat ba ak jàpp ga ak jëf ji ak jëf yi te teg ci ci wàll ci ci wàll ci wàll yëpp te dara itali ko lu may lëggee sëñ Tuubaa Maam Mor noonu nag sant nañ bu baax dégg nañ wax ji dégg nañ lépp it ñun jumtukaay sëñ Tuubaa rek lan yoo xam ne ji amuñu frontière fenn lépp lu taalibe sëñ Tuubaa bëgg te sàkk ko ci nun danañ te jéem ci suñ kattan ba ba fan mën a yem yi def naa ko dem gi sàkku ngeen ko loolu danañ ci waxtaan incha allah ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp asalaam وسالك نار الخل li baru ma yumba